بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون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 ci suñu seen bi di OTV Oriental TV ñu ngi siyaar mbokki yépp di baalu àq gannaaw bi ñuy baalee àq mu mel ni ka mu doon émission diine ak jamono bi ñuy bëgg di àndil mbokk yi saa su ne fii nii si OTV fa tabarakallah ñu ngi ziyaara mbokki yëpp mu mel ni ko tey bu ñu ñëwee tey bëgg xamal mbokk yi émission bi dafay tàmbali mu doon émission boo xamante ne lii jëm ci diine ak ci xaqiiqa moom la ñuy doxal waaye tamit li ànd ak jamono mbokk yi xam ngeen tey jamono ji lu ko yor mooy diine diine kese ngay mën a am nga nekk ci xaw xamante ne foofa nga nekk mën nga fa am jàmm ci kaw nga yaru ci diine mbokk yi mu mel ni que wàllu diine muy ndaw muy mag muy xale muy jigéen muy góor képp koo xamante ne jullit nga rek war nga mën fonk sa diine fonk sa tarixa fonk àddina bi muy jamonoom nga xam nan nga siy demee nga xam nan nga si dundee waaye mbokk yi mu mel ni que tey suñ fi ñëwee tamit balaa ñoo tàmbalee xamal mbokk ñi nii ci émission bi ñu nekk dina ñaanal réew mi dinaan balaa bi fi wàcc yal na ko yàlla aar yal na yàlla aar sàmm réew mi dàqal ñu balaa bii ba nga xamante ne dañ koy toog di nettali rek mu mel ni ko ñépp xeex nañ ko muy sëriñ si muy kilifa aaday muy kilifa yépp ñoo xamante ne ñu ngi ci kaw suuf ñoo ngi koy xeex ngir li tudd feebar bii nii muy corona mu jële fi ñu ñaan sunu borom yàlla na ko fi yàlla jële xam naa ba tey rekk di ñaanal tamit waa dawli yi mooy ñoo xamante ne dañ fee jóge bàyyee ko fii dem ci këru dëgg ba te ku ne xam na ne ñun dëkkuñu fi ndax te képp koo xamante ne rekk yaa ngi nooy ci sa ruux ngay nooy ci sa bakkan di nga ñam dee donc ñu ngi ñaanal mbokk yi ñu ñuy jiitu ji ca barza yal na leen yàlla xaare ajana tënkuñu si njub ba ñu fekk leen di ñaanal tamit suñu mbokk yi yoo xamante ne aji tawati mooy ñu tëdd ci hôpital yi wala tëdd seen kër mënuñoo dem hôpital te feebar